Euh, mbokk yi noo ngi fii ci bureau Safinatul Amaan talaata fukki fan ak juróom ci weeru juin atum 2021 yemoo ak ñeenti fan ci weeru diggu tabaski atum 2021 am opération bu am solo boo xam ne Safinatul Amaan amaloon nañ ko ci dëkk bu sell bi Touba rawatina ci ñi nga xam ne dañuy wax ne dañuy faj wala ñi nga xamante ni wax ne dañuy ñaan ci ay yenn ci ay qualité yoo xamante ni bi yu ñaaw la ci dërëb dëkk bu sell bi Touba nu bokk seetaan image bi ci bi seen mbokk Modou Makhtar Diop Benno FM Touba bopp yi gis ngeen lii bopp lan la. yeew yeew jësig lii ngeen yaakaar la bopp jësig la gi gis ngeen eh, bopp mbaam. lii bopp xaj baa ngi nii bopp xaj baa ngi nii lii ngeen jàkkaarloo bopp xaj baa till la bopp till bopp till kii bopp mbaam lii tànk mbaam xaj baa lii bopp xaj waaw bopp xaj baa ngi nii la ilaha illallah ci lépp ci dëkk bi lañ ko jëlee. benn place benn place ci dëkk bi benn place benn place képp lañ ko jëlee daf na dikkee di wax ak moom ci dëkk bi maanaam dafa mënoon affaire bi doo ko muuri ci man sooga ne affaire bi mu naan na ko man dinaa ko muuri sës ci kër soxna may nii magasin bi Cheikh Abdou kaw télé bi jëm kër soxna moom waaw magasin bi Cheikh Abdou bi uh-huh. ci bopp bi la nekk ci côté magasin bi lañ ci buntu magasin bi lañ ko def te ñoom Eh, mbokk yi kon noo ko gisandoo lii ñu ngi ko jëlee ci tali bi nga xam ne moo bàyyi ko ci kër soxna mi moom la Bintul Xadim jëm kër soxna moom yi yaaykat yi di toog foofu nag jëf jure ji ndekki moom la ñu toogaale woon foofu ci dëkk bu sedd bi di Touba. yi gis ngeen lii ay wewi mbaam ak ci lépp fi lañ ko jàppee. Eh, ñetti fan ci ginnaaw tey di fukki fan ak juróom ci weeru juin atum 2021 lii nag ñu jàppe ko ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Touba Safinatou Amaan defar nañ liggéey bu rëy ci dëkk bu sell bi di Touba bokk yi bépp mala boo xam boo ñëwee fii da gis lu bokk ci moom te lii lépp ñu ngi ko doon jaayee ci dëkk bu sell bi di Touba ñu jàpp ko nag ñaari fan ci ginnaaw tey di fukki fan ak juróom ci weeru juin atum 2021 yemoo ñeenti fan ci weeru diggu tabaski atum 2021 seen mbokk moo du Modou Makhtar Diop Bayti TV teewalu leen fii ci Safinatu Amaan mu nekk opération bu am solo boo xam ne amal nañ ko ci dëkk bu sell bii di Touba. boo xool léegi lii dugub bi golo la golo la golo la yel bi de yelum nag la moom berub golo yelum mbaam fii de yel bi nee ngi fi rek mbokk yi gis ngeen ko li ne ci biir saako yi sax te wari wuñ ko moo ëpp lii nga xam ne wane nañ ko fii ci béréb bu tedd bi nga xam ne moo di Touba fi lañ ko jàppee fukki fan ak juróom ci weeru juin atum 2021 ñeenti fan ci diggu tabaski seen mbokk Modou Makhtar Diop Bayti TV teewaloon leen fi ànd ak rajo benn FM Touba.